yàlla di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa di sant sëriñ bi sëriñ Touba di renouveler suñu jébbaloo suñu jaayante ci sëriñ Touba di ko jaaree ci Cheikh Mouhamadul Mountakha mi ko fi nekkal tey ñaan yàlla yàlla yàggal ko te wéral ko euh, di tamit. Euh, sant bu baax Cheikh Mouhamadul Bachir mi nga xam ne mooy porte parole am di porte parole yoon wi di rafetlu tamit message bi nga xam ne ñëw na délivrer ko message bi bi mu délivrer ñoo ko déggandoo muy li nga xam ni sëriñ bi daf ko wax jëmale ko ci barab bi fii Masalikul Jinaan muy étape beneen étape boo xam ne bii bu ñu bëgg a sóobu ndaxte ku ne xam na ni programme bi nga xam ni moo doon programme Masalikul Jinaan ay phase la won yu bari muy d'abord jakka ji nga xamni fi la ñu jullee mu nekkoon lenn ci li nga xamni mom lañu warona ci programme bi programme bobu nak di institut islamique de recherche Cheikh Ahmadou Bamba nga xamni sax érigé nañ ko en fondation état du Sénégal defal nañu ko fondation

Massalikul Jinaan bi génn na ci la liggéey bi gën a gaawe ci lay gën a jàppandi ni ko Cheikh Mouhamadou Bachir waxee muy yóbbante bu Cheikh Mouhamadul Mountakha dañuy dem ci la seconde phase maanaam mooy ñaareelu phase bi nga xam ni moo nekkoon ca njaal bennu liggéey bi muy nga xam ni muy jàkka ak institut bi institut bi nag dafay englober lu bari dafa nek ay ay modules yu bari yu nek ci biir façon mu liggéey muy d'abord day am institut de recherche nga xamni borom xam-xam yi nga xamni ni nañu ci mbirum jangale mbirumu diine mbirumu tasawuf ak jangale li nga xamni li moy mooy Serigne Touba ak mbindam yi mu daal di nekk benn genre université bo xamni ne biir ci biir institut bi lay nek nga xamni dañ fi def majalis yu maga maga mag mu nek ay ay ay salle modulable yu bari ak amphithéâtre ba paré daldi am tamit ci biir Ben ben ben musée musée bo xamni bi Cheikh Ahmadou babba nga xamni lepp lo xamni li ay mindu Serigne Touba la dinañ ko fi def nga xamni dañ koy digitaliser parce que xam ngeen Serigne bi limu bind bari na bari na lol lol lol amna ci mindu yo xamni sax. yu bari dem na ndaxte xam nga du bari dañ ko daan am mu doon ay barkeelu mu nga xam ni dans les grandes famille religieuses lay nekk ku ciy dem da ngay bëgg booy dem yóbbaale ko mu doon sa barkeelu xam nga xërte taalibe ak sëriñ bi yooyu nag nga xam ni sëriñ bi daf ci bëgg a joxe par exemple benn taxawaay boo xam ne bii mooy lépp loo xam ne mbindum sëriñ Touba la te ñu jàpp ni dafa yem ci xasida yi rek te weesu na foofu ndaxte amul benn fànn boo xam ni muy fànn xam-xam muy fànn wànnu sociologie muy fann bo meuna jël rek tasawuf te Serigne Touba bindu ci ak ay téré yo xamni daf ko synthétiser yo xamni seeni borom demone na bu yàgg yàgg yàgg sakku ci mom mu yeesal téré yi Serigne bi résumer len synthétiser len yooyu nak dañuy am un très grand programme de digitalisation bo xamni bi dañ ci ànd ak sax waa wa wa waa bibliothèque Touba ak ñi nga xamni ñoy borom xam-xam yi nga xamni Serigne Mountakha dajal na de à chaque fois mu len di dajalé di waxtan ak ñom ak di len berndel pour manam ñu mën maintenir cet héritage mu nek lo xam luñu Serigne Touba bayil muy un legs culturel énorme bo xam bi kenn inépuisable et dans tous les domaines de la science religieuse alors dans la science religieuse et la science aussi sociale ba nga xam bi bii loola dañ fi def un musée pour sauvegarder li nga xamni li moy mbindam yi ak tamit am ay relique yo xamni ay relu relugi sëriñ bi la manam mo xamni lu demone ci ay bagasam yi nek ndiarem yi nek daru Xudoos yi nek ci keur Serigne Touba yi nek ci talibé yi comme niñ koy défé au niveau de la mosquée bleue fële ci Istanbul nga xamni bo fa démé di nga fa fekk jassé yi Seydina Aliou di nga fa fekk karaw sang bi Seydina mohammed sallallahu alayhi wasallam sallam di nga fa fekk mantom di nga fa fekk ay tiaraxam ak dalam té lolou lépp yu Serigne Touba mi ngi fi nga xamni ni ñu mourer nit ñi diko nous buñ leen di buñ leen di rob ñu def ko bo lo xamni day un musée bi nga xamni bi day musée pour sauvegarder le patrimoine aussi riche de Cheikh Amadou Bamba. bu ko tamit dinañu am une très grande salle une salle de conférence bo xamni bi salle bu ñu tollu amul ci Afrique parce que on veut faire une salle de 3500 places. Je sais que exemple rek salle bi fi ëpp Grand Théâtre Le Grand Théâtre a ngi 1800 places on va doubler la capacité parce que dinañ salle de xam 3500 places Nous nga toutes les manifestations religieuses les conférences et autres Nous ko mën ci Massalikul par exemple des appartements privés pour amener des hôtes de marque en séminaire wala ñu fiy ñëw en conférence wala ñu fiy ñëw ci période yo xam yi manam yoon wi day soxla mu melni lu melni magal wala lu melni wadjal magal wala lu melni par exemple l'anniversaire de l'ouverture de la mosquée Massalikul Jinaan le 27 septembre de chaque année mu nekk lo xam li dina nekk un petit réceptif d'accueil des hôtes de marque loolu nak moy li nga xam li moy programme bi ci dess mom le Serigne Bass ñëw doon wax ni dañuy ñëw pour pousse liguey bi sëriñ bi nag dina ñëw ci fan yi ndax bërki démb rek sëriñ bi ci boppam jot na ma ci téléphone ni ma man rek lay déglu ak Cheikh Mouhamadoul Bachir heure bu ñu bëggee rek dina ñëw poser première pierre bi pour ñu commencer liggéey bi